Siwdu jammi boom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo sama doom baay maa ngi lay fay Aliou ki yokko tax ma sama sœur ak moom ñu bokk baay di ku baax te ndeem doon pat ci sot la bokk ñu wan ni ko ni ñi ngi lay seetaan te di la soutenir merci beaucoup yooyu bii bi di la encourager ndax émission bi dañ koy seetaan chaque jour mais macha allah merci beaucoup wax yàlla na yàlla mottali lépp comme nit ñi allo ñu ngi lay déglu baax ñu ngi lay déglu grand bi waaw ma comme nag nit ñi dañuy bari ci kii bi du jar ñu ci yàgg waaye di wan ni sunu jigéen ñu ngi koy sëpp bu baax di ñu ci plateau bi yëpp macha allah merci beaucoup naa jërëjëf merci beaucoup jërëjëf Mbaye jërëjëf mm. Alioune Mbaye jërëjëf ñu ngi kontaan bu baax ci sa woote. très bien Mbaye Mathiaaka jërëjëf. mën nañu continuer ah. Hein? ayca fi nga nekkoon pardon. xam nga yow bu ñu waxtaanee mën nañu mën nañu waxtaan. Uh-huh. mais Bijou day bëgg indi confrontation. c'est-à-dire bu tiraay moom amee rek bu tiraay moom amee non mais je suis d'accord. yaa ngi xas bi taf mais je suis d'accord attends non non non non pourtant. Euh, parce que bu nekkoon ci rôle yow li ngay wax ni doo ko tala wax. mais loo defe naa lii mooy rôle lii mooy lii mooy réglu euh, confrontation. Mm-hmm, mm-hmm. mais nit ki. Je ne confronter quoi man duma confronter kenn te duma amuma tiiraay mo ak doomu adama man duma ma duma def tiiraay Padros regarde Padros il faut pas que ñu n'ayons que filles. mais je comprends mais. Je pas xaaral pas expliqué la pas je dama les rappeler waat à l'ordre nous en temps normal euh, ce que Padros fait ou bien ce que Bijou fait nous importe peu. tu vois l'émission c'est confrontation bu ñu fi toogee ci la def suñu rôle. Mhm. et que pour faire rôle bi dañuy def confrontation ba mu mat. Mhm. est-ce que comprendre nga. on n'est pas là pour caresser les gens. très bien léegi confrontation ñëwuñu fi pour raay. léegi léegi léegi sa émission bee paase raay nañ la nga wax li la neex fi da ngay tok toog. non li nga xam eh, man non non non. après benen émission mën nañ la jëlaat nga wax fenen ci benen émission. yaa ngi xool nga wax li mais confrontation ku pare pour débattre dañ lay fiy tek ñu wax. waaw d'accord légui ñun tamit duñ nangu wax ci ni léegi pour leeralal tuuti. man nit mënu ma pousser ba ma wax luma ma wut wax

laaj ko. non non non mais ñun ñëppay posé question bi confrontation la donc da ngay posé question boo leen mën posé mën naa ci ton mais am na yoo ne bu amee rek Mais léegi donc day mel ni que xam nga pratiquement wax ay si kenn créé fu ay pour nous tënk wax bi un animateur doit joindre l'utile à l'agréable ah, moi je t'ai posé la question mm. à quand la ñu war joindre l'utile et à quand agréable bi doon ñëwagul mais nangoo tontu ci utile. lan la xam nga question boobu dafa dafa dafa dafa di question boo xam mais confrontation y a des questions pièges mais laisse-moi terminer quand même allez-y xam nga question question boobu dafa nekk question boobu dafa dafa terre à terre. ah man su ma taxawee ma euh, un animateur da ngay essayer de joindre utile à l'agréable. Mm-hmm. Moi, que da ngay fexe gindi nit ki bégal ko da ngay gindi nit ki ba pare di ko bégal ki ngay toog ci sa télévision yow mi bijou attends nekkoo fii kase pour euh, pour xuloo ak euh, ses invités chaque jour. confrontation waaw mais nekkoo waa mais déglu rek déglu da ngay ut njëriñ ci émission bi. mais boo ñu convaincre tamit léeg xam nga tey bu ñu jógee ci émission bi te amul solution. mooy que amul je pense pas. ak façon bi nga xamante ne bu ñu la posé question. nga indi théorie. te doon jox réponse aussi mais pratiquement mais émission yàgg na am. xaaral ma la rek parce que dafa mel ni que yow dafa mel ni que yow. dans mon rôle. yow nag yaa waragul. convaincre gul sénégalais yi. dafa dafa mel ni ci olof bi nga gën nekk à l'aise que français bi parce que boo nañ ci animation da nga war a jinni nit ki mhm. ba pare bégal ko sabi yow ci ni nga agréable agréable léegi nag léegi dañ la laaj yow mhm. la laaj yow maanaam gindi boobu ci ban moment nga ko war a mën a ginde maanaam loolu la ci français cest à bi ci ban moment nga a mën a ngay gindi mhm. mooy nit ki dafa mel ni ci olof bi ngay gën a ci ngéwél bi olof la nàmp. man ah, léegi léegi léegi man personnellement hmm. euh, je sais pas la moo indi padros fii kon. je sais ah pas

te le dire. C'est pas à moi. Bijou, chaque vendredi, nous rasco. Mm -hmm. Nos problèmes. Mais aujourd'hui, c'est à Padros de démontrer aux Sénégalais qu'il est un animateur professionnel. Pro, comme il l'a dit. On t'a invité pour cela. Nga wax ci lolu. Ci fofu lañ tollu. Mhm. Tollu ñu ci pour nga wara wax en parabole pour de teunk ak xol suñu xam-xam. Mais mën na ni damay damay damay jim pour nek professionnel ci sama domaine. Ah. Ay. ok guma professionnel ci sama liguey parce que nee naa la xale bu ndaw nga invité. 14 ans de carrière quand même. wala démarré guma sax suma carrière man. 14 ans de carrière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

salaamaaleykum ah kooku bii bi ngoone ah ñu ngi lay kontaante bu baax noo tudd ak foo ñuy woowee. maa ngi lay woowee ci sa eh, États-Unis Cincinnati Ohio. ñu ngi nuy waa Columbus damay seetaan émission bi toujours man nag bii ngoone rek a tax ma woote. ah merci beaucoup c'est très gentil. sama fan su boobu. jërëjëf kontaan nañ bu baax. bu baax te laa biir macha allah. xam naa doo ma xam mais un jour dama fi amoon benn soxla bu ma doon lijjanti nga ma ko non problème. ah merci beaucoup mu gën a yombee. <laughs> merci beaucoup merci. toujours nag damay bëgg a si ci émission yi dama lay suivre toujours mais xam nga rek comme jot moo amul. mais macha allah yàlla na la yàlla fay sa xol. li nga bëgg yàlla na la ko yàlla defal. please give me a minute. yàlla na la yàlla defal li nga bëgg yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defal. amiin amiin ndax macha allah. jërëjëf jërëjëf merci ñu ngi nuyu di nuyu bu baax baax a baax di kontaan ci bi nga xamante ne yéen koy teewlu ci émission bi Padros euh, euh, naanal ndox. maa ngi profité di nuyu ngi nuyu seetaan depuis Màkk waaw waaw yow tamit sa yaay yëpp sànq ngi koy nuyu. depuis Màkk ñun xam nañ fi mu nekk ak yooyu yëpp. waaye li ki def mënoo nuyu sa yaay nuyu si yaay suñu jeex. te faaw wax ci man ci man comme li nga ma laaj léegi foofu laa tolloon ah balaa may tënk la mu. ma boom maa ci xam dara lépp lu yëngu